di rafetlu seen ànd ak seen producteur culture média mbokk yeeg xaritu ñu seetaan bismillah eh, ci xibaaru di yow ak njàqare ak ab piis eh, ndaxte daal dañu fa faat benn ko agent de sécurité ñu jàpp ne sàmba bu ñoom ñoo def eh, ñaawteef boobu ci Tigo am ay gàllankoor lu ko xibaar ab xanaa si lim ba te bañ a dàq kenn ñoom ca Matam ab bërëbu daay bu ba askan wa dal askan wa moo fa klaate tey jii ci suba ab kamikaze moo fa tàkk ci noonee jàmmaarloo am euh, ba takk derrière mu ci baaru tàggat yaram yi dinañ ci ñëw li ci ak yaay mbokk yi lu la nestu ñaatal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah xibaaru diggu bëccëg gi ci àjjuma ji yem ak fukki fan ci weeru mai atum 2013 ñu doon ak xew-xew bu tiis amee foofee ca marché ngelaw ca jaboobee nag fare ca usine tali doata benn waay moom de sécurité ngelaw moom nag dañoo naqarlu ba tey ci xibaar yi ñu leen ko waxee woon ca bopp ba liggéeykat yu tigo ñoom banque seen yoxo tax na bu mu jokkoo gi am ay jafe-jafe euh, ci ñi nga xam ne dañoo amee li di puce euh, Tigo lu ko waral liggéeykat yi ne seen njiit dafa am lu ñu bëgg a dàq ci ñoom loolee la ñuy euh, naqarlu ñu ne nag du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg te it bu fekkee ni delluwuñu ginnaaw ci loolee ñu wax seen grève boobule du ñu ko amal ab app dinañ ci dellu soit ci suñu xibaar ak Fatou Bintou Konté ma xëy teewal ñu ca seen jano ak taskatu xibaar yi ñu leen ñu amal ab grève banque seen yoxo ci aljuma ji euh, di nag benn kuréel bu lëkkale ay jàngalekat ñoom nag xamle woon nañ ko ci ndoxteelu ay bés bile ñu ne nag dafa am ay ponk yoo xam ne jubawuñ ci ak nguur gi te loolee nag moo moo tax ñu daal di banque seen yoxo bisu tey jii ci aljuma ji yema ko fukki fan ci weeru mai ak at yoonu koy euh, def euh, ba tey ci xibaar yi Dakar 2014 ñoom nag dañoo fas yéene euh, jàpp bu Ndakaaru Khalifa Sall ci liggéey ak it ñu ne ponk yi nga xam ne ci seen gët dafa am solo la ay euh, bokk ci kuréel euh, Ibrahima Kamara Mageng ñu ñee la dénk si ay mën na liggéey jub na nangu naa li mu yor sedd yaru na ku mel noonu su yoree dara war naa mën a xel dal ba yow miy dëkk ak moom su ko soxlaatee nga am lu la pour jàppale ko loolu moo tax ñu ko créé suñu moment bi li naa la ci tontu man dama ne suñu liggéey mi ngi jëm ba 16 mars 2014 bi mooy jour élection yi ñu fexe ba li mu yoroon su fekkee bëggaat na ñu delloo ko ko mu àggale liggéey bi ndax nag li mu yor kenn jëppiwu ko ci te léegi nit ñi yeewu nañu nit kuy liggéey doo fekk di seet sax ndax parti ban la bokk dañu ko ceeg moom te ñun gëm nañ ne la waxoon naa la léegi ni la bàcc li waxoon dama ko c'est le seul maire boo xamee mooy def benn initiative euh, citoyen ci laa bokk di kuréel goo xam ne daal lu téeméer euh, nañ ko ñoom ñëpp nag di ay doomi Sénégal bokk nag ci ay ñaawlu rek mooy ci euh, jongante tabbu njiitu gox yeeg goxaan yi ñu jàpp ko ci atum ñoom nag ñu naan candidat loolu dok Mbacké Seck Mouhamed Dieng jëlee fii bedd bi ñuy bedd yenn ci ay doomu senegaal ci langue politik bi ci wàll gox-goxaan yi loolu doon na xeex gi kuréel gi tudd ci la bokk tàmbali ñi fare foofu liñu ñu bëgg yomale bépp Sénégal ci sàtt yu tënk élection yi dafa am gàkk-gàkk bu nekk suñu code électoral gàkk-gàkk bi mooy bu ñu ne élection locale dañu nekk ku bokk ci parti politique am nga droit participer ku bokk parti amuloo droit participer ñu ne loolu mënul nekk parce que ñu nekk Sénégal moo am ñaar mu am citoyen yoo xam ne bokkuñu bokkuñu sañ-sañ bokkuñu bokkuñu euh, euh, euh, sañ-sañ loolu mënul nekk. ngir loolu mën a nekk képp ku bokkoon ci assises nationales yi xamale woon na ne dina jëmmal lu ni mel njëriñ nguur gi tey bokkoon ci ñi siife woon assises national yooyu. képp koo xam ne bokkoon nga ci assises yi ñoom ñoo ko signé jël nañu joxe seen kàddu. ni bu ñu jëlee nguur gi bu ñu ñëwee ba nga xam ne mën nañu fekk nekk foo xam ne dinañu mën a soppi mbir yi dinañ ko def loolu nag lañ leen doon fàttali tey boo xoolee assemblée nationale ña fa ëpp gën fa am doole mën a soppi lépp lu ñu bëgg mooy ñu nekkoon daanaka ci assises yi tey moo tax danañ leen bind ñoom ñëpp bataaxal ne leen liikat kat yéen ko waxoon ci assises nationales yi ni bu ngeen ñëwee di ngeen gën a dëgëral démocratie di ngeen fexe ba citoyen individuel yi bëgg nekk ay candidat ñu man ko nekk tey ñoo ngi leen di ñaan la ngeen waxoon ngeen ngeen ngeen jëfal ko. boole soxna yi fi ñuy buumee wala di fa bummi ci gox goxaan yi dina saafara ngir ñu dem ci yoonu développement. mooy lijjanti ndox moom mooy lijjanti seet ji marché ba nu mu demee moom mooy lijjanti ji assainissement mooy takk mbalit kon nag joxoon ko jigéen ñi buñ ci bokkee ca fa ñuy nase ak nañ koy defee. yaakaar naa ne dina baax. ci la bokk doon kuréel bu farul fenn li muy ñaan mooy bépp doomu senegaal dugg ci mbiru réew mi loolu doon beneen façon ngir ñu suuxat démocratie. Cheikh Abdou Khadre Mbacké Seck ca Matam moom askan wa daal di bëgg lool gannaaw ba nu ibbee benn bërëbu fajukaay bu bees bërëb boobee nag daloo nañu ko ca ibbite ga ñu daal seet askan wi Matam fekk fa suñu nattangoo Ali Bandal ñaamand ci ak Seydou saax wàllum wérgu yaram askan wi bokk ci kolo aw poste de santé ak bu jàmmel quartier Subalo bi kat dalloo nab infrastructure bu bes jeex na commune daaw ubbi cancer de Diamel bu baax public bi car hôpital Sec Sarr c'est grâce à trop. ngir kon mun a marqué lu ñeel wàllum ubbiteefu poste de santé bu subaloo tax na ba meerub dëkk bi daal di organiser ay bëccëgu consultation gratuite yi ñu jagleel jigéen ñi ak xale yi bërëbu fajukaayu bi waaye foo kon ñu daal farlu ci anam bi nga xam ni noonu la ñu nar a yi maanaam recette ci poste de santé bi ñu ubbi fi jar na lu ëpp ki million tey ji nag gannaaw wàllu wér askan wu Matam ñu ngi xaat ci seen maire daaw ci projet d'extension maanaam électrique bu Senelec bi ci quartier yu bees yi nga xam ni mairie bi ci boppam moo fa joxe parcelle. Ali Bandel bu ñu jugee Matam ñu dëpp jaar ca diwaanu Njàmbur foofee nag ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñoom dañoo bank seen yoxo lu ñu bëgg nag mooy loolee am ca diwaanu Matam am ca ñetti bërëb ci euh, mel ni euh, Sàkkal Kokki ak Kër Momar Sarr maanaam daal ñu yokk bërëbu fajukaay yooyu lim bëri ñett ci ñu ne dañuy euh, teewlu Mouhamed Traoré kàddu mu ko dénk suñu naataangoo Thierno teewal ca Louga bi am na bureau régional fii il pare que bureau régional bi dafa wax ni ñoom du ñu euh, respecter mot d'ordre boobu parce que loolu d'accord ñu si donc ñun nag lu ñu mën a def mooy appliquer li nga xam ne suñu autorités yi si kaw wax nañu ko mooy euh, ministre bi bindi na circulaire nan nañ def situation Euh, si district sanitaire yi si poste de santé yi pour seet ñi nga xam ni depuis bi ñu defee rétention de données maanaam 2010 eh, données yi disponible eh, depuis 2010 ba léegi donc ñu ngi si loolu ensuite mu ne ñu def rapport pour wax ko ñi nga xam ne euh, infirmier ou sage-femme ou médecin fépp fu mu toll ko fi nga ki war a def rapport defu ko ñu def rapport wax ko donc ñu ngi ci situation boobu fii lekk semaine bi nañ am situation boobu yëpp ñu rendre compte ministre de la santé. juróom ci weeru mai ren ji nag ñu wax ci fitna gi li nga xam ne mën na ko jural askan wi rawatina ci wér-gu-yaram jëm ci euh, xel Bakary Laurent Mendy ci ay leeral Croix Rouge mu ngi màggal 150 ans action humanitaire fii ci àdduna bi yëpp mu amal nag benn panel fii si Ziguinchor boo xamante ne thème bi impact conflit armé sur la santé mentale des populations. jeexital bi nga xam ne moom la xeex bi am ci Casamance. mën a jur ci wér gi yaramu ñi nga xam ne ñoo dëkkee Casamance. waxtaan boobu tey dañ doon fexe pour wan nit ñi ne leen nekki boobu ñu nekk ci biir Casamance di dund xeex bi du du def lu may ci seen wàllu wàññi leen ci seen wàllu wér gi yaram tey gis nañ ci ay feebar yu bari yu nga xam ne xeex bi am ci biir Casamance bokk na ci li nga xam ne. moo yee feebar yooyu wala moo ko yokk ci nit ñi. Croix Rouge moom joué fi rôle bu mag fii ci Ziguinchor ci Afrique ak ci àdduna bi yépp. CICR ren mi ngi màggal cent cinquante ans cent cinquante ans yi nga xam ne CICR mi ngi jàppale nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi nga xam ne fitna dafa yeew wala mu nekk ay contexte yi nga xam ne dafa am guerre. délégation CICR bu Ziguinchor moom tamit da koy màggal suñu xoolee am na ay activités yu bëri nga xam ne lal nañ ko benn activité bi mooy benn panel la ñu doog a def léegi léegi léegi te ñi ko animé muy ay euh, ay kàngam yi nga xam ne ñoo nekk si ne si seen i si seen i euh, bërëbu liggéeykaay. fii nag ci diwaanu Ziguinchor activité dinañ leen amal ba le 11 mai. ñi bokk ci kuréel coupé coopérative d'exploitant ca gox bu ci mel ni Casamance ak euh, Tambacounda di woo jëwriñ bi ñu wàllu alam gi mu xolaat bu baax a baax seen secteur boobile euh, rawatina koppar yi ñu gàll euh, ci taxi yooyu le dañuy teewlu ci noonee Mamadou Saliou Mballo ak Abdoulaye Diallo moo teewal télévision Futur Média ca diwaanu Kolda defar lu mel noonu de service encore mu ne permis yi ñu daggoon en 31 décembre 2012 permis yooyu en tout cas ku ci yóbbuwul bu waxtu sangam jeex na nga joxe sa dañu ne loolu du dëgg permis yi même permis 10 000 10 2010 ministre bi nga xoolaat permis bi nga xam ne produit baa ngi tëdd service eaux et forêts mais service bu assermenté la ñoom bu ñu constaté ne permis bi bi mu tëddee fii ba léegi permis bi demul produit bi demul. mais war nañu mën a dolloo boromam ci ay possibilité mu mën a jaay produit am mais nga fekk nit ci àll rek nga ne ko yow li nga sase ëpp na mu ne la wax dëgg yàlla man li ma sase ëppul nga ne ko wàcceel oto bi nga wàcce oto bi fekk fa ñaari yu ëpp ci quatre cent sacs de charbon nga fekk fa ñaari saaku yu ëpp apprenti bi benn saaku chauffeur bi benn saaku nga ne jàpp oto bi nga fayal ko borom huit cent mille francs nga fayee ko borom nga huit cent mille francs loolu ci ban réew la am amaan lu ko toog noonu ministre écologiste la bu ñu toogee gis ministre boobu ñun ñu liggéey ko wàññi nit ñi fay liggéey moom mooy yokk nit ñi fay liggéey loolu ànd na ou bien mooy xam ngeen président de la république mooy nuyu ñëpp président ci yéenam bu rafet gis na ne exploitant forestier yi ay nit ñu xarañ lañu mu yéene leen bokkuloo leen ci biir conseil économique et social malheureusement bu liste boobu génnee non seulement gisuñu fa turu benn exploitant forestier ñi fa nekk jël suñu place kenn ki xaw ma c'est un retraité fondé le pouvoir de banque on certain Varini keneen kii de Bengari c'est di màggal ñaar fukki at yu mu def ci musique bi moom artiste boobule di nee na ca bis ba fas yéene naa benn ak benn ci noonu dañuy teewlu Ibdou xew-xew bi nag euh, mooy suma troisième édition anniversaire suma groupe mu tombe ak suma vingt ans euh, yi may war a fêter vingt ans de carrière musicale 93 2013 ça fait vingt ans ñu war ko fêtewaale euh, le 11 mai théâtre national Daniel Sorano ah loolu mooy xew-xew bi nga xam ne moo tax may woo sénégalais yi. programme bi bu bés ba cosaan dina fa feeñ. Ah, ay woy itam dina fa feeñ ay chorégraphie itam dina fa feeñ lépp rek ci maanaam ci cadre cosaan bi surtout parce que comme ñun ay séeréer lañ te séeréer dafa fonk cosaanam fonk li mu doon man je crois que ñun artistes yi ñoo war a mën a yëkkati suñu culture ñoo ko war a mën a yóbbu ci kaw ñoo ko war a mën a jaay ba ñeneen ñi dul séeréer gis ci seen bopp di ci di ko déglu di ko seetaan di ko di jënd di ko jënd xibaaru biti réew yi ñu ca diwaanu Mali foofe ca bët gànnaar ba ab kamikaze euh, xaru maanaam daal daal di ci kawam ba mujj sax jur euh, ci réew yi menaka ci bët gànnaar bu Mali ci lañu nemmeeku benn attentat ki def lu ni mel moo dugg ci dëkk waaye soldat dëkk Niger weccante woon na ak soldat yooyu ay balu fetal ki def attentat boobu rey nañ ko waaye li mu yoroon explosé na amul kenn ku ci gaañu ci soldat yooyu. en Afrique du Sud doon réew mi jiitu ci wàllum platine en plat xamle na ni dina wàññi lu toll ci juróom benn junni ci ay liggéey boo moyul loolu mën naa yëngalaat réew mi ci ñiy liggéey ci miin yi benn bomb tàkk na ci biir marché bu nekk ca Miranshah dëkk bu nekk Pakistan ñeent nit ñàkk nañ ci seen bakken ak ay gaañu gaañu yu bari am na ci explosion boobu. mu ngi am ci ba ñuy waajal élection général ci Pakistan Miranshah mooy dëkk bu ëpp solo ci bëtt gànnaaw bu Waziristan dëkk bu jege lool Afghanistan te Afghanistan doon na dëkk boo xam ni taliban yi ak waa Al-Qaïda dañ fay yëngu. sapeur pompier yi génne nañu benn soxna ci biir immeuble bu tudd Rana Plaza ki ko xamle mooy njiitu sapeur pompier yi ñaar fukki fan ak ñeent ci avril bi ñu weesu la immeuble bi daanu woon ca Dhaka capitalu Bangladesh. accident boobu lu nit ñakk nañ ci seeni bakkan suñu sukkandiku bu mujj bi ngook bàkk ba jib na tàggat yaram ñu doore ko ak fukk ak ñeenti directeur technique yi nga xam ne dañu leen fas yéene tàggat fukk ak benn ñoom euh, di di tàggat euh, ñi nga xam ne ñoom seeni at moo gën a ne féete ndaw dañ ci ànd ak Cheikh Sadbou Diarra su Baro ñaar fukki entraîneur ak juróom benn ñoom la ñuy tàggat si diiru juróomi fan ca Mbour ci ndimbalu FIFA programme bi ñu ngi ko tuddee grassroots football de base mu doon ab programme bu ubbeeku ñu bëgg fédération yépp di ko wëyal tikub football moo xam góor jigéen ci li mel ni ay xew-xew yu ñuy woowee festival mais xam ne it ne kontaan naa lool ci niveau participation ñi nga xam ne ñoo di éducateurs yi du niveau de participation de nos éducateurs. formation. Euh, lu bees tamit mooy euh, ñu ñu permettre affaire ñu développer dans tous les départements ak région Sénégal te loolu bon am am amagul baax ñu suñu liggéey mooy léegi euh, def de telle sorte xale yi partout dans le Sénégal ñu ñu ñu mun football si si si euh, si terrain yi. parce que difficulté bi mooy. amul ay bal yu bari amul ay amul xaalis et que bon yenn saa espace bi xale yi di jouer duñ ko moo tax que yeeg maire yi. léegi dañuy jéem a seet nu ñu koy codifier pour ñu mu mun a dimbali nit ñi euh, mun a dimbali ñu defaraat football bi ci suuf si ko à part de la base comme direction technique nationale moo ko xalaata amal. dañu gis ku nekk da ngay da danga am sa yoon boo trasee di dem sa warul demee noonu euh, dañu war a effectivement euh, liggéey ci benn programme boo xam ne bu ñu gëstu la boo xam ne. Euh, moom moo soxal addina bi yëpp pratiquement boo demee Europe boo demee Asie boo demee euh, fu nekk fu munti dem ñi ñaa ngi liggéey ci programme boobu euh, ñu bëgg également aussi Sénégal également aussi ñu liggéey ci loolu. juróomi dafa lu ñuy wax festival boo xam ne daañu invité lu mat ñeenti téeméeru xale yoo xam ne dañu nekk ak ñoom ci terrain bi 9h ba ba ba 11 ba 10h demi 11h. pour effectivement euh, wan leen ni nii football bi wan leen organisation tournoi ay ay parcours ay circuit technique yoo xam ne euh, ñun ñi ku ci nekk boo dellu sa boo delloo sa région di nga essayer monter lu xaw a mel noonu. Cheikh euh, Sadbou Diarra tàggat yaram ñu jeexale ak xew-xew ba amoon ca camp pénal bu Liberté 6 fare fii ci euh, Ndakaaru euh, finalu basket moo fa amoon gannaaw basket it def nañ fa li nga xam ne moom mooy bàkku ni ñu ko gisee sànq guy gi daal di ko teewe Cheikh Tidiane Dione Mohamed Dieng ñoom it teewe woon nañu ko équipe bii di Roxa ak Liberté ñu ngi doon jongante ci lépp lu jëm ci wàllum basket loolu nag mu ngi amee woon fi nga xam ne moom mooy ca camp pénal nekkoon daal ab manifestation boo xam ne ñii di waa administration pénitentiaire ñoo ko organisé woon ngir gunge ak jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo foofe ca camp bu Liberté 6. mel nii tey dañ ma ci woo li may wax tey rek fekkee ma ci boole ndaxte dañ ma ci boole ma ñëw dugg ci mu doon loo xamee ne bi ma ñëwee euh, ci bés bu dëkk ba di ko visité euh, dama ne woon euh, sama yaram daw na waaye tey beneen climat laa fi fekk ma doon wax ne lii suñ ko mënoon saa su nekk di ko def mois bu nekk ma def ko ndax béggal leen ñu def ko waaye damay ñaan ne ñi ma fi fekk yàlla bu mu leen fi fekk moo mois prochain. ñii di administration pénitentiaire ba léegi moom mu ngi wéy ci politique bi nga xam ne mu ngi koy def. lépp lu jëm ci wàllum récupération ak lii di réinsertion maanaam fexe ba dugalaat ñi nga xam ne dañ leen tegoon loxo ci société bi. objectif bi mooy permettre à ñi ko mënoon ñu koy def mais ñi ko mosul def aussi ñu jàng ko bu ñu ko jàngee avec l'encadrement des entraîneurs qui sont la avec même la ligue sénégalaise de basketball comme ni ñu koy defee pour mbër mais bu ñu génnee ñu jël leen récupérer leen ci ay équipes yi et puis former leen. final bu doxoon diggante Roxa ak Liberté daal ñu ngi ko doon joué ci kanamu ki nga xam ne moom mooy guy gi nekk roi di sempi mu ngi doon dëfal ñi nga xam ne dañ leen teg loxo. prisonnier du dañ laa dugal ci biir da ngaa bon déedéet booy seet ku tedd ki jaar na ci te tey moom la ñuy gën a tudd moom la ñuy gën a tudd ay taalibeem kon du caagin da ngaa bon beneen bi mooy man mii di wax ak yéen tey def naa samé deux mois te tey maa ngi nii di doxee mois c'est force naturelle dama gëm sama bopp jaar jaar la woon. ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo foofee ca camp pénal jéem a delloo njukkër ki nga xam ne moom mooy parrain bés bi di Aziz Samb gannaaw bañ ko ñawalee benn yére daal di ko koy may. Cheikh Tidiane Dione bàkkuy guub yooye mooy ndar képp xibaaru tàggat yaram yi ñëw ci beneen ponk li ci yéenekaay yi ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. environnemental taxawal nañu ko mbiru jox ma xët mu njëkku la soleil photo ba ca nekk ngir ña demul woon ca King Fahd Palace sa xam yëfee nan la demee ma ngook njiit la di Aminata Tall dend ak njiitu réew mi Macky Sall yéenekaay bi nañu euh, ko kaddu ya xam ne njiitu réew mi Macky Sall yëkkati na ko fa sant ko waa conseil économique social et environnemental moo di seen warugar mooy fexe ba waggar ci lu nekk loole na ngeen xam ne lu essentiel la maanaam lu mënta ñàkk la le soleil dikkee ñun ñoo ne Sud Quotidien nañu Macky Sall wax na nga xamante ne ji moo di limitu spécial la fa mu mën a yam ak li nga xamante ne ji war fexe ba mu rëcc ko wal fajri euh, wala boog lu ñu ca ndaje moomee sa Seck moom la fa Aminata Tall invité woon mu invité d'honneur ba Seck tooj na fa mooy buuru cérémonie ba ci gàttal li ko waral yéene kaay bi nañu ca moom i leen ndaje fa dem euh, di ŋàññ nguurug Macky Sall ak ni ñuy doxalee ndax doxub euh, gaa yi yi ñu bëgg ñu tere leen ko sa Seck xam leen ne loolu démocratie ak dellu gannaaw la nañu ndaamal kajoor mise huit pour cent di sa Seck delloo na buum ca ba la ñu ko xamee woon di cong Macky Sall su dul noonu sa sekk defati na ko ca King Fahd Palace la si ni kay xëy ne Sall ci boppam moo jug aw tànki Abdoulaye ndax doxi ñaxtu yu ñuy tere journal bi nañu loolee yaakaaroon nañu bu Abdoulaye Wade di dem da ko na ñu jàpp leen euh, Idrissa Seck ay kàddum la mu xam ne moo di recul de moom ëpp naa sax wax nit di ko Idi pare ca kàddu ga maître Alaaji Amadou Sall mooy ki fi doon tam Macky Sall jamono bokk ci PDS eh, di xam le ne eh, Macky Sall bëgg ko bañ koo ci yem fu ñu jaar danañu amal seen doxub ñaxtu boobee surnaaj nañu eh, ci école nekk ca Pikine la gars yi préparé woon libéraux yi dañ doon ñëw fa loo xamante na la nëbbu li ne njëkk populaire dafa jafe-jafe bi lan la ba tey populaire bi ñu xamal ne di ki nga xam ne moo di Sayer Niang moom la ñu tuumaal ne anam ya mu yore ARMP dara dara dara moo ci baaxul Sayer nag weddi na nee na kenn nit moo fa jug bëgg xasa ko ñoom malaise ba fa am Sayer Niang ne kenn la waaye du li nga xamante ne ji mooy ni ñu koy waxee li saa xam ne direction générale d'état def na ko fa SAR mooy société africaine de raffinage yéenekaay bi nañu la fa amit ëpp naax nit di ko dégg turu di bën bënup juróom-ñeenti milliards ak juróom-ñaari téeméeri millions moom la ñu fa fekk ngëf yo ne meng yéenekaay bi nañu nag euh, ki nga xamante ne ji moo di Caramello Sagna ak Samuel Sarr ñoom la ñu ci tuumal waaye ñoom nee nañu defuñu dara Macky Sall mi nga xamante ne ji moo nekkoon ministre énergie lépp def bu ñuy leer bu ñuy wut ay leer ak di xool fu xaalis ba jaar nañu ko laaji Macky Sall ki nekk ci xët mu njëkku sa euh, observateur seetaane mu fa Aminata Niane Aminata ñaan mooy ki jiite woon APEX yéen a kaay bi nañu moom Aminata Niane ndee ndekk gi ànd na ak Abdoulaye Wade ba Abdoulaye Wade daano mu jóg di ànd ak Macky Sall ba bàyyee ca bopp APEX yi indemnité de licenciement boobee maanaam bañ ko dàqee lañ koy jox ne ay droit yéen a kaay bi nañu toll na ci quatre-vingt-dix millions Aminata Niane encaissé def ci poosam wala bokk def ci pochetam Macky présidence def ko comme ministre conseiller mu amee avantage am koppar yu nekk mu jël tam yéen a kaay bi nañu Aminata ñaan PCA euh, muy euh, ay rapport s Diagne nga foofee ña ngi ko fay fay mu ya ñaar fukki million ñeent li tam dawal journal bi nañu neuf cent mille la ñu koy fay weer wu yàlla sàkk lépp Aminata Niane ay borom li tax yéen a kaay bi jàpp ne Aminata Niane c'est un cas troublant li trouble football ci Guinée Ngaye Saloum yéenekaay bi eh, di stade xëy na ko leeral Alaaji Diouf la jox kàddu gi la bi ëpp naa wax en tout cas daal ci tubaab mooy c'est complet foire ñu fekk ko ci tous les sports moom Alaaji ñu mu ne loolee ay conneries la li jege conneries di li xew de Demba Diop combat garga tena ji moo di Lac Rose sunu làmb xëy ñu xamal ne wattaay wi ñu doon di ko di ko xaar yëf ya jurul lu Garga Mbossé moom la ñu sànni xeer moo tax combat ba am xam ne ne ñoom seen bëgg-bëgg yépp moo di na Garga Mbossé amaat jàmmam waaye na yëf yi bu ci kenn tudd waa Fass ndax waa Fass duñu ci dara waaye sport dikkaat ci yooyu xëy ñu xamal ne li nga xamante ne ji moo di combat bi waroon dox diggante Garga Mbossé ak Lac Rose euh, Garga dañ koo kawate ab xeer moo ko yóbbu ardo xeer wala du grand place xëy ci dikke noo xamante ji lii la moo di lan Saint Pierre gâche l'ascension bal ci nekk jàmm. Mouhamed Ndiaye sant nañ la gërëm la ci li ci yéenekaay yi ak la ñu xëyee mbokk yi mu ngoog fi la ñu yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi jaajëfaleen ci teewlu bi yeneen i xibaar ci kàllaame wolof ak nasaraan ak rédaction bu Télé Futurs Médias ngoon lay am ñu yendoog jàmm.